Euh, pour man ni ngeen di opposé woo dama nekk genre opposition boo xam ne opposition soft la quoi. xam nga kenn du leen dégg si yenn affaires yi sax peut-être sax F24 yéen da ngeen si bokk pour bañ ne pour bañ bañ nit yi wax ne yéen da ngeen bokk F24 parce que opposition bi ñoom ñëpp retrouvé wu nañ foofu ngeen ngeen bañ seul ngeen rejoindre mm-hmm. F24 est-ce que loolu euh, c'est réalité wala nit ñi dañuy wax rek. c'est-à-dire d'abord euh, li nga wax dafa am solo mooy ci élection yi ñu jógee. Mm-hmm. dañu am ku ñu tabb député ñu koy wax Papa Djibril Fall ñu tabb ko député 17 août 2022 exactement avant ñuy installé la assemblée nationale le 12 septembre bi mu toogee di wax li mu wax c'est clair mooy askanu Sénégal ñoo ma dugal assemblée nationale je réaffirme mon ancrage dans l'opposition sénégalaise assemblée na bu ñu fa demee statut ba ma fay am c'est un député non inscrit pourquoi may nekk le député un député non inscrit parce que sama liberté man bi ma dugal ci politique ba lu ma bëgg a wax wax ko représenter askan bi dignement te kenn du téye sama tànk mbaa nga téye suma gémmiñ mooy tax man bu ma demee assemblée je serai un député non inscrit taxawal as Sénégal gis nga président Pape Djibril Fall xam nga ci lu mu ne. Hmm. ci l' intérêt général. ci l' intérêt du peuple. mais gisaguñ benn proposition. c' à dire non non non à gis nga nekk assemblée nationale def ay discours. gis nga xam nga lan la ñuy même man sax mun naa mun naa ko def. waaw xam laa lay invité pour nga def une comparaison. Mm. entre la posture politique ak le statut politique. la posture politique. non mais faut pas jouer sur les mots quoi mooy posture bi mu am tey ak position bi mu am mooy. ah mais c'est statut politique mooy statut de l'honorable député. moi je suis pas un député l'honorable député c'est quelqu'un boo xam ni. dafa am un nombre un échantillon boo xam ni da nga représenté à l'hémicycle kooku mënut a bokk ak Ibrahima bi nga xam ni kenn kenn falu ko. mais mais man lu mu wax ah, euh, wax nii. mais mais assemblée nationale moom la dugg assemblée bu nga waxee ne moom posture politique mu nekk député mu nekk. naa la ko mën naa la ko leeralal. alors il faut qu'on a d'autres points. waaw mën naa la ko leeralal. am na importance. daanaka foofu amul importance pour yow. xam nga ban importance la am hmm. statut bi mu am moom mooy il est un honorable député un député non inscrit ça c'est le statut politique la position et la posture politique bi mu am mooy àndul ni ñu yore réew mi mu nekk un opposant politique maintenant sa manière de s'opposer il reste du côté il est sur l'intérêt général il n'est pas dans le savantisme déviant il n'est perversion morale nekkul aussi ci calcul politique mais yaa non non lépp lu am <laughs> perversion ma lépp lu am lépp lu am si olof perversion morale dama lépp lu am ci Sénégal président Pape Djibril Fall ñaari ak serviteurs ñaari question lañ ci posé wu. d'accord de alors, quoi s'agit-il et où trouve l'intérêt général. d'accord am na loo xam ne bu fekkee mooy opposition ñu ñu ci loolu. d'accord ñun ti ñu nekk mooy ah. nekk du côté du peuple sénégalais.